gan gi ni ko ana waxee lieutenant Henri Boumy Ciss chef euh, division communication ak prévention bu comité interministériel de lutte contre euh, l' immigration clandestine wala immigration irrégulière ni mu ko waxee gannaaw coppite guñ indi ci ni nuy woowee mbir mi ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM maa leen di fay di nuyu waa euh, auditeur réew mi réew mi FM ñoom yëpp. Mhm. alors fan yi ñu nemmeeku euh, net na Henri que euh, yi dafa bëriwaat ñi nga xam ne ñooy jël gaal yi jëm bitim réew takku lool bakkan yu bari aussi di ci rot lan ngeen jàpp ne moo waral mbir mi jógaat ni waaw boo ma ko mayee rek ma njëkk si ngéem mm. ci li xew Ndar di leen jaale te di masaw ñi ci loru woon. Euh, li xew nag euh, du nekk loo xam ne Sénégal rek la xew ndax euh, ñu bëri jàpp nañ ne sax loo ci yooyu ñuy jàpp Sénégal am na ñu ciy jóge Sénégal naam mais am na yoo xam ne ci yeneen dëkk yi ñu sëkk yi ñu wër ci la ñuy déparé léegi ndax xam naa ne surveillance bi xawoon na leen sonal hmm. te ñi ciy nekk nekk du nekk rek ay nationalité bu Sénégal dañuy boole ak yeneen nationalité yi nga xam ne ay yenn dëkk yi nga xam ne mun nañu ñëwee ba fii wala ñu jaare noonu ñu dugg ci euh, bokk ñoom ci loo coy donc loolu dafa nekk loo xam ne <clears throat> xam nañ ne ci suñu càmbar bi euh, euh, Afrique yëpp la laal rawatina bu ñuy wax Afrique subsaharienne mm. donc phénomène boobu lu koy indi ñëpp xam nañ ne ah, tukki nag sañ-sañ bu ñu mën a nangul bépp def la mm. te ñun xam nañ ne suñu maam ci suñu cosaan Sénégal ñun dañu xamoon dem tukki ji euh, ba ci euh, indépendance yi après indépendance yi ñun gis nañ ko. Hmm. donc tukki nekk na ci loo xam ne euh, aussi nit ku nekk am na sañ-sañ boobu mu def ko ndax loolu la ko yoon may. yelleefam la ak ak yelleefam la pour mu mun a dem xanaa kay ñu def ko ci anam yi nga xam ne moo gën. Euh, yeneen euh, wax naa xam ne aussi euh, tukki dafa nekk immigration irrégulière dafa nekk loo xam ne lu yéeme la parce que kenn mënu kaa nakk fii ci ne nit ki amul liggéey rek ndax am na ñoo xam ne am na ñu xëy te terewul lañ ko fii bàyyi dem nekkul rek ne dafa am ñoo xam ne am na ay dëkk yoo xam ne bii immigré day fekk seen dëkk bi dafa yëngatu am ay yëngatu ay trouble ay conflit ah am na ñoo xam ne aussi nit ñi ñoo bëgg am euh, seen bëgg-bëgg bopp la. Hmm. dem tukki xool yeneen réew. Euh, naka la euh, yëf yi tëddee foofu noonu. donc nga xam ne bu ko kenn teg rek ci ne ñàkkum xëy la wala lii ak lee la. wala yore lu bon am nañu gis ne ni ñu yoree kopparu réew mi moo baaxul moo tax ndaw yi découragé bay wuti leneen bi ngeen di jàngat gisu leen loolu. ci suñu jàngat. Hmm. lu ñu gis ñu ne gouvernement bi. Euh, def na ay jéego yu am am am solo ndax euh, ci njëlbeen ba léegi nii man maa ngi woon fii ci 2009 ak 2006 bi ñuy njëkk première vague yi bi ñuy njëkk a départ fii nii Sénégal euh, gouvernement bi jël responsabilité am ne lii dama koy xeex looloo waral sax ñu créé bi ñuy wax lu ñuy wax cellule nationale de lutte contre la traite des personnes rawatina noppi ñu teg ci la division nationale de lutte. contre euh, le trafic de migrants mooy ñi nga xam ne euh, dañuy euh, fexe ba criminel ñi nga xam ne réseau yi ñooy organiser mbëkk bi. Mm. ñoom ñu mën leen jàpp di leen yóbbu ci yoon. waaye itam ñu renforcer sunu sunu sunu législation mooy ne loi cinq bi nga xam ne. day day daan ay daan yu métti ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser lu mel noonu kon nga xam ne réew mi def na ci ay jéego yu bëri rawatina nag li nga xam ne signé na ko ay accords yu bëri bilatéraux ak accords yi nga xam ne aussi euh, euh, par exemple Nations Unies euh, protocole yi ñu war def yëpp def na ko ndax rien que ñu mën a xool nan la ñu mën a xeexee mbir mi. Hmm. bu mujj nag mooy bu mu xeex bu xalaatee monsieur le président de la république mu créé ci décembre trente décembre deux mille vingt mu créé li ñuy wax commité interministériel buy xeex mbëkk bi. buy xeex mbëkk mi nag loolu dafa bëgg a wonewaat euh, euh, euh, volonté sàkkutee fu président de la république ak autorité yi de état du Sénégal pour mu dindi fi li ñuy wax mbëkk mi waaye fu mu nekk nii boo ma ko permettre ma ma wax ci tuuti. Mm. ñu ngi évoluer jëm ci li nga xam ne moom mooy fu ñu nga xam ne dañuy exploiter suñu gaz yi ak suñu pétrole yi. donc waral nañu ñu xalaataat lan mooy stratégie bi ñi ñan ñoo war a dugg Sénégal ak lan la ñuy duggee Sénégal ndegem nit ñi suñu Sénégalais yi bu ñuy génn dañ leen di càmbar ñu itam dañu bëgg ñu itam ñu boole ci fànn boobu ñuy càmbar ñi ñi nga xam ne aussi ñoom dañuy dugg suñu réew moo tax léegi ñun ñu ngi bëgg a bàyyi SILEC euh, te ministre de l'intérieur monsieur le ministre de l'intérieur ànd na ci loolu ñu dem ci li nga xam ne moom mooy comité interministériel buy xeex. dugg bi bu baaxul bi ak génn bu bu baaxul bi hmm. donc euh, ay ma waxaat ci li nga xam ne gouvernement bi def na ko mu nekk ay agence yi nga xam ne créé na ko ay agence yu bëri bëri euh, mun naa wax ANPEJ nga xam ne moom mu ngi toppatoo xëyu ndaw ñi mun naa wax euh, li nga xam ne mooy DRFJ ay financement ak ay formation yi nga xam ne ñu ngi koy def ay jeunes yi bu ma xoolee rek li jëm ci par exemple xëyu ndaw ñi Euh, ak programme boobu bu am solo depuis deux mille vingt et un bi président bi taxawalee loolu euh, ministre euh, monsieur le directeur de l' emploi mu monsieur Modou Fall nee na lu toll ci plus de fukki junni xëy créé nañ ko te formé nañu ay li mat ay junni ak ñaar ñaar fukki junni ci ay ndaw yoo xam ne dañ leen di former ci entreprise wala ñu former leen ñu defal seen bopp seen projet te yeneen structure yaa ngi fii euh, ñu mun a ay ñu mun a def ay financement hmm. donc mais est-ce que loolu doy na pour téye ndaw ñi. waaw dama ne euh, loolu loolu doyul pour jàpp ndaw ñi. Hmm. am na yeneen jéego ya nga xam ne nag moom lañ doon xaarandi ndax buñ ko buñ ko mënee jot bu ñu ko jotee. Hmm. ñu mën a gën a euh, labali fas bi parce que li fi nekk kenn du ne doy na. li li ñëw nag moom yaakaar nañ ne ci la mun a matali li nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne tàmbale nañ ko ndax ay la yéwén bu ñu xoolee ministère de la des affaires di def ci benn pàcc. Hmm. ministère de l' emploi def ci benn pàcc. ministère de la jeunesse di def benn pàcc yooyu yëpp euh, mënuñu mën nañ ko capitaliser fi mu toll nii ndax nee nañu lekk moom mooy structure bi nga xam ne mooy coordonné loolu yëpp léegi. Hmm. ba nga xam ne nit ñi dinañ ci mun a am càmbar am teg ci seen gët ba yëpp leer. Euh, ñu xam nan la ñuy defee. Hmm. te ba nga xam ne ci novembre daaw bi ñu réunir ak société civile organisation migrants yi ak suñu partenaire développement yëpp ñëpp nangu nañ ne li ñu mooñ ay la yéwén taxaw na pour mun a xeex euh, euh, mbëkk mi. Hmm. mooy ne ci den novembre la woon ci lañ tabaxale tabaxee stratégie bi ñuy wax nii mu desoon nag gouvernement bi def ko moomeelam. dugal ko ci politique publique yi ndax ñu mun a am ay bailleurs yi nga xam ne dinañ ko financer waaye itam état bi euh, jël ci euh, wàllam moom itam mu def ko ci ndax euh, yëf yi mun a sotti. Hmm. ci loolu nag lañ dëgmal fu mu toll nii. Euh, ci euh, alxames bi di ñëw. Mm-hmm. ndax euh, premier ministre ak gouvernement am yëpp dinañ teew foofu noonu ñu def ko ñu ñu valider politique bi migratoire bi bu Sénégal lu jëm ci migration irrégulière. Mm-hmm. est-ce que tam yéen a ngi fagaru ndax zone de départ yi dañuy wax ne ñaaree xam nañu leen Kafountine fan yi moom moo ci gën a fës mais Ndar aussi ñi fay jóge di dem bari na fan yii la ñu ngi wax ne ñetti téeméeri migrants daal nuy départ ñu bari ci ñoom réer démb ñu ngi dégg aussi téeméer ak lu teg. ñëpp di ay doomi Sénégal daanaka yegg nañ ba ñu walloo leen euh, ci réew ma nga xam ni teer nañ fa mais wolof danaan fagaroo gën faju euh, lieutenant de police nga est-ce que renseignements généraux yi ñoo ngi def seen liggéey bu baax a baax pour que fagaru gi mën a mën a gën a xëy na am solo que euh, faju gi waaw naa sawar tontu ci laaj boobu li may njëkk rappelé rek mooy ne ñetti téeméer yooyu ñuy wax hmm. ñun firndeeluñu ko waaw man parce que ñun ñu naan euh, ci SILEC ñun ñu ngi dajale euh, bépp euh, information bi nga xam xam ne mu ngi jógee ci police gendarmerie marine nationale armée de l'air ak waa haute autorité kii de la mer ASMAR. Mm-hmm. donc ñoom ñoom ñun dañu former benn poule boo xam ne lépp li nga xam ne day xew ci géej gi. Mm-hmm. ñun dañuy waasaare information boobu ñu jox ko SILEC. ndax ba ñu toogee ak waa au commissariat aux euh, de l'homme bu Nations Unies mm-hmm. ak waa OIM dañu def benn li ñuy wax euh, euh, les procédures opérationnelles normes standard nga xam ne bu amee lu xew ci biir géej bi mm-hmm. xam nañ kan lañ ko war a wax xam nañ ki ko wax ki ñu ko wax mm-hmm. kan la ko war a wax itam ak nan la ñuy fexe ba ñu information bi yëpp ñoom ñu ñu ñu wëral ko biiral ko te loolu ba léegi yegg siwul ci ñun ci loolu te ci weer bu nekk euh, secrétaire permanent bu SILEC dina def benn rapport hmm. bi nga xam ne dina ko adressé euh, au ministre de l'intérieur euh, ak autorités yeneen yu nekk ci kaw hmm. sa chaque juróom benn weer ñu saytuwaat ngir mi ñu wax ne ah lii de moo génn ci tànnaas ak ak ñaata nit la ñuy jot a euh, téye ñaata nit lañu ñu yóbbu ci kaso yi ndax euh, dañu doon organiser ay ay mbëkk mi ñaata nit lañu ñu euh, secourir en haute mer parce que chiffres yëpp am nañ ko. Hmm. moo tax am na yenn chiffres yoo xam ne bu ñu koy dégg ñun day dawloo suñ yaram wala dañ ci teey parce que ñun xamuñu wax da ngeen fa yàlla fu ñu leen di jëlee dispositif bi nag. dafa nekk dispositif boo xam ne c'est bien huilé ni ñu ko mënee waxee ni ratax na. Mm. ndax diggante marine nationale yi def patrouillam mm. euh, diggante moom ak division nationale lutte contre euh, trafic de migrants nga xam ne mu ngi ci police de l'air et des frontières. Mm. Euh, diggante ak gendarmerie ak armée commission nationale gestion des frontières yooyu yëpp càmbar nañ ñu ngi ànd ànd boo xam ne rafet na tax na ba ah, wax dëgg fa yàlla waxuñu ne départ du mun a am. waaye am nañu départ yu bëri mënoon naa la limal fii ay statistiques yoo xam ne. mun hmm. nañ la wax ñaata euh, euh, looj euh, gaal ñoom ñoo yegg si daaw ndax SILEC fournir na benn rapport annuel bu koy wone hmm. ren ba fi ñuy waxee ak yow nii. mun nañ la wax ñaata gaal ñoom ñoo yegg si ak ñaata nit lañ delloo si. Hmm. donc nga xam ne ñun maîtriser nañ côté boobu parce que dafa nekkoon loo xam ne aussi. Hmm. Euh, dafa nekkoon gàllankoor si ndax euh, mun a càmbar lan mooy migration régulière. Hmm. ñu ngi ci nag euh, di liggéey di ci liggéey lu am amoon solo ak li nga xam ne moom mooy waa police de l'air et des frontières xam ne ñoom ñoo taxawal frontières yi. ma delluwaat ci li nga wax noonu. Euh, ma dolli. ndax euh, monsieur président la république dafa wax ci conseil des ministres bu muy def communication am mu ne nañuy dolli patrouille yi. Hmm. nañu dolli euh, càmbar bi nañu dolli. surveillance bi waa prévention bi surtout voilà suñu hmm. frontières yi. waaw donc loolu am na lu am am solo la. Euh, xam comme sëgëm euh, borom dëkk bi borom réew mi moom moo ko wax mm-hmm. euh, dina am ñu gën a ñoŋal itam suñu activités yi mm-hmm. foofu noonu ci frontières yi. très bien laaj bu mujj bi mooy ñi nga xam ne fexe nañ ba àgg ñu delloo si leen naka ngeen leen di taxawoo bañ mën a amaat ci luñ téye ci biir askan wi ndax dañuy dégg ñu ñu bari aussi di wax ne dañ leen jàpp yooyu migrant yooyu lan mooy seen seen traitement bu ngeen leen di gàttandoo. waaw migrant ay la yeneen suñu législation. nanguwut ñu jàpp leen euh, di leen xanaa dañuy def enquête rek da xam ne yan condition lañ demee euh, fan lañu demee ak yooyu noonu euh, enquête boo xam ne enquête bu normal la waaye amul kenn kuñ ci yóbbu tribunal ñu ne ndax da nga doon tukkeek yooyu noonu loolu moom dama bëgg mu leer nañ ci bopp ñëpp su législation permettre policiers gendarme homme de loi mu jàpp migrant mu ne daf koy yóbbu kaso wala mu daf koy defal dossier pour mu yóbbu ko defeere ko tribunal ñi ñuy defeere tribunal nag xam nañ leen mooy ñi nga xam ne euh, ci ci ci ci rêve ci espoir nit ñi la ñuy dunde mm-hmm. ah, ay criminel réseau criminel la ñuy organiser yooyu ay ay ay ay ay ay ay voyage yi nga xam ne ah, suñu ndaw yi ñoom ñooy ñooy ñoom lay faagaagal mhm. ñu def ci biir géej gi te mu doon lu métti métti métti ndax dëkk yu développé yëpp ñëpp xam nañ ne seen euh, ci seen doole euh, jeunesse la ñuy compter mhm. donc ñun suñu suñu suñu jeunesse bi suñu richesse la te dañ ko war a protéger moo tax nag ñu nekk ci loolu euh, di ci di di ko def am na ay programme yi nga xam ne nag tëral nañ ko fi waxoon naa sànq. Mm-hmm. Euh, programme xëyu ndaw ñi. ndax euh, li nga stratégie bi lu mu téye dafa téye dafa am juróomi ponk yoo xam ne il faut ñu ñu ñu ñu liggéey ci. mooy mm-hmm. ci communication sensibilisation mooy bu njëkk. bi ci topp mu ne il faut ñu gën a euh, aar suñu frontières yi ñu gën leen defar. Mm-hmm. ñu xool ñan ñooy dugg ñan ñooy génn. ci ñett il faut ñun ñu xool suñu loi yi bu fekkee ne am na yoo xam ne méngoowul ak jamono ak jamono. ñu ñu gàgganti ko ñu di ñu ñu joyanti ko euh, am na loo xam ne aussi moom mooy lan la protéger comme ni nga ko waxee nii assister euh, migrants yi ak protéger leen euh, bu fekkee ne am na luy xew-xew yu mel nii ak ay ay chavirement pirogue ak yooyu noonu. bu mujj nag mooy réinsertion bi bu ñu ñibbisee mm. ndax xam nañ ne booy tukki da am yaakaar ak mëbët bu rëy mm. ne boo demee di nga tekki ah boo dellu siwaatee nag ci anam yu métti yooyu noonu day mel ni déception bu rëy la donc am na benn prise en charge euh, psychologique sax bi nga xam ne war nañ ko mun ay euh, def ci yow am na ay euh, naam ay kuréel yi fi nekk ñu ngi ciy liggéey yu bëri bëri ñu ngi liggéey ak ñun ñu ngi jox ko hmm. ci ci fànn boobu gouvernement bi aussi def na teg na ay jéego ay ay ay agences yi nga xam ne ñoom duñ mun a financé hmm. euh, GMD ñu ngi fi euh, avec les fonds régionaux. ñoom dégg naa sax fan yii rek ñu ngi dugg ci biir dëkk bi di def ay dépouillement euh, yi nga xam ne jeunes yi nga xam ne dañ leen war a financer yu mel noonu. Hmm. am na yeneen formation président bi insisté na lu bëri bëri bëri bëri ci li nga xam ne moom moom la ñuy wax 3FPT. mooy ci euh, formation professionnelle ak technique. Hmm. nga xam ne euh, wax dëgg fa yàlla ñu ngi jéem def jéego léegi pour mun a jox xale yi ñu mun a am ay euh, ay xëy wala am ay lijaasa wala am ay loo xam ne daal jumtuwaay yu dëgër ndax aussi euh, balaa nga ne naam nga ne fa nga am métier boo bu wóor boo xam ne mun na firndeel ne ah mun nga def euh, lii ak wala la mhm, li ci mujj nag mhm. mooy ne xanaa peut-être rek ñu ànd ci ak gouvernement bi ñu dem fekki arxemes Euh, suñu euh, validation politique stratégie boobu bi nga xam ne ñëpp na àndu nañ ci mm-hmm. nangu nañ ko euh, bu boobaa itam ñu mën a am ay suñu bailleur ak ay suñu financement ñu mm-hmm. ñu teg programme bi nga xam ne moom lañ yaakaar ne buñ ko tegee mm-hmm. mun na saafara lu bëri bëri ci mbir mi xew ni ci Sénégal yàlla na sotti te amal njëriñ réew mi jërëjëf lieutenant Henri Boumy ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi communication prévention ak sensibilisation ci comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière milliards jërëjëf. merci ñu ngi lay gërëm.